wàññi farata wàññi farata si ab raakaar su boobaa julli nga yàquwule day sànni boobu remplacé ko ak beneen raakaar waaye su paree sa julli nga mbokk yi day sujjoor baax nga allah loolu farata la si julli raakaar. sama loolu ku doon nag wàññi nga nee si julli nga kooku lan mooy affaire. yaa saas ku doon julli wàññi nga si julli nga julli nga du ko sujjootal ndax nga neen kenn du ko sujjootal. mashkura. soxna Ndioba ku doon julli am ñaari waat wala du par mu juum daal di sërmal kooku doon julli juum am ñaari raaka sërmal te waroon a jëm mbokk yi su boobaa julli ga yàqu de na wéyal na julli ga waaye su noppee day sujjoot baax da salaam ndax dafa yokk sa julli ga sërmal ba mu nekkoon a sërmal. macha allah yooyu appel am soxna Ndioba ki doon julli timis wala takusaan wala tisbaar wala gee waaye ñaari la am waaw waaye lii nga dafay yokk ñaari raat maanaam bu la limee talaata bon lu ko ëpp nga yokk si lu man ñaari raat boobu loolu mooy affaire ku doon julli timis ñetti raaka juum yokk si ñaari raaka su boobaa ba tey julli nga yàquwul bu sëlmalee day si joor ba'da salaam. naam loolu leer na ku doon julli ñetti raaka yokk si ñaari raaka julli yàquwul léegi ku doon julli ñetti raaka nga yokk si yële ñetti wala ku doon julli ñaari raaka yokk si yële ñaari raaka maanaam ku doon nga yokk si li mu toll la nga waroon julli nga ko lan mooy àtteel. ah mbokk yi ku doon julli nag yokk si li nga waroon a julli raaka yi tool li nga waroon a julli su boobaa nag moom julli nga yàqu na dafay bamtuwaat julli googu su boobaa euh, su jootul kii du ko mën a defar. ah kon boobaa su jootul ko mën a defar képp ku yokk si li mu toll la nga waroon julli la julli googu dañ koy bamtuwaat xam julli nga ñu ko julli yàqu na jërëjëf suñu Ndioba Aram ak soxna maa ngi ñëw leen fii si. balaa nga ngeen am ñoo aw. soxna Aram ñaari ñoo bokk classe ñu bëgg leen laaj laaj yoo xam ne ñoo koy commencé ndox lan mooy liy yàq jàpp. liy yàq jàpp dañu kaa seetale si ñaari xaaj. ñaari xaaj yooyu ban ak ban la. ay toj la sabar yu toj. liy yàq jàpp ñaar ay toj ak sabar yu toj soxna Aram lan mooy toj yi. yaa oustaz toj yi juróom la. juróom la ban ak ban. ñett si kanam lay génne ñaari si ginnaaw. yi génne si kanam yan la. tuur ndox. naam masiw. ak génnee waddu. tuur ndox génnee masiw génnee waddu lan mooy masiw. yaa oustaz masiw mooy li góor di génne buy bànneexi sew yi góor di génne buy xalaat jigéen wala mu koy xool. naam lan mooy waddu nag. waddu mooy liy génn si njeexintalu saw. macha allah mooy ngeen si ginnaaw. yi mooy. tuur dugub. ak génnee ngelaw. waaw kon lii mooy yiy njàpp lii mooy yiy njàpp daal ma ne sa mbokk mi sabab yi du njàpp da nga woon ay tëj ak i sabab kii wax na tëj yi sabab yi yan la. na si tàqali ko sa sabab. waaw. tàqali si tàq ci ndox. waaw wala xam. wala màndi. macha allah. alhamdulilah li tëj loo xam sabab si li tëj ak moxtaar. ak moxtaar day sabab la si lii doon ñaar ak lan. ak nelaw. nelaw sabab la si lii doon ñaar ak lan. ak laal jigéen. ak laal jigéen sabab la si lii doon ñaar ak lan. ak sikki sàq sim toj. sikki sàq sim toj ñeneen nelaw tollu ñaar waaye sabab la si lii doon ñaar nelaw ñaata xaaj la. nelaw ñeenti xaaj la. nelaw di nga seetlu si ñeenti xaaj man moo si jiitu. nelaw mu gàtt te diis. waaw. day toj njàpp. ñaareel ban la. nelaw mu gudd te diis. waaw. day toj njàpp. ñetteel ban la. nelaw mu gudd te oyof. naam sopp nañ borom mu jàppiwaat. ñeenteel nelaw mu oyof te gàtt. waaw kooku daal nekk si di toj yaa ustaas. baarakallah fi baarakallah fi nee na laa jigéen maanaam nga laa jigéen solo wala nga jom jotee woon si yaram. nee na la si di toj njàpp waaye loolu ay xaaj la ñaata xaaj la. ñeenti xaaj la. laa jigéen nga seetlu si ñeenti xaaj ba moo yaa oustaz laa jigéen ñeenti xaaj bi ci njëkk mooy. Mhm. laa jigéen jublu ci bànneex am ci bànneex day toj njàpp. ñaareel mooy nga jublu ci bànneex amoo ci bànneex sa yàqu toj na. ñetteel bi ñetteel bi mooy jubluwoo ci bànneex am ci bànneex sa yaa oustaz du toj njàpp. non boobu bisimilah kon ñu ñëw waa cinquième ñooñu firi lu am solo lool ñu ngi di jàpp. Magu ñoo ñoo ngi ñëw si li ñu tuddee sujudu jamul Magu lan mooy atte lan mooy sujudu jamul si julli. sujudu jamul ci julli yaa ustaas loolu sunna la. sunna la naka la ñu sujudee suuf boo xam ne wàññi moo ko waral. ki nga xam ne dafa wàññi ci julli kooku dañ koy digal mu sujood xam la salaam xam la salaam mooy. ginnaaw bi nga taayaa ba pare balaa ngay sëlmal nga dolliwaat ñaari sujjoot taayawaat doog a sëlmal. macha allah. sujjoot ba'da salaam naka lañ koy defee. kuy. ku yokk si julli sujjoot boobu sujjoot naka lañ koy defee. ki yokk si julli kooku dañ koo digal na sujjoot ba'da salaam. naam ba'da salaam mooy. ginnaaw bi nga ba pare. ba sëlmal. Mhm. balaa ngay ñaan wala ngay sant. nga dolliwaat ñaari sujjoot ki nga xam ne dafa boole ñaar yëpp julli. Mhm. kooku dañ ko digal mu sujjoot xabla salaam ndax nee nañ xabla salaam moo ëpp doole ba'da salaam. macha salaam. sukkaral lañu loolu leer na jërëjëf jërëjëf soxna Amy Gueye lan mooy koor si charia am bànneexu sëy ci fajar gi xaree fi bi sowee nga yéene si jaamu yàlla noonu la koor noonu mooy koor si charia koor kañ lañ ko farataas si xeet bi alayhi salaatu wa salaam waaw oustaz koor mooy ñeenteelu ponk ci ponk lislaam yi di juróom ñu ko farataalee si weeru Sàmba ñaari at si gàddaay bi. ñaari at si gàddaay bi alayhi salaatu salaam dañu faral si xel yonent bi alayhi salaatu salaam soxna Ami Gueye xadis yi wax si ngëneelu koor bari na man xadis ngay tamit mbooloo boo xam si ngëneelu koor lay wax. waaw oustaz bokk na sa xadis ba nga xam ne bokk na sa xadis ba nga xam ne Abu Hurayra moo ko solo mu ne boo weeru koor ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne weeru barkeel dikkal na leen yàlla farataal na si yéen julli li ngeen wóor ko loolu bàyyi daal di génn saytaan am na guddi bu su bu su nekk moo gën junni weer. kon weeru koorangoo ak gën a wér na yi nga xam moom la lamboo fekk jeex na Moussa Diouf fekk jeex na. maanaam daal ay man Soalnya ngi def ñëwoon naa ne la Fatick eh, jaaduwul ayam mu jàll soxna ma àndoon li soppi ci góor ñett la. li soppi ci góor ñett la ban naam. ak dogee tàngal. lan mooy xëdd ak lan mooy njëriñam. njëriñu xëdd ma yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ni. dee leen xëdd ndax xëdd kat barkee ngi ci. dee leen xëdd ndax xëdd kat barkee ngi ci barke bi lan mooy da lay dimbali ci caawarte ndax nga bi kon ak nee na teelaloo teelaloo ak yeexaloo ñaari weer moo si gën ba la gën a tànn. teelaloo moo ci gën. naam te yonente bi alayhi salaatu wa salaam mi ñuy wax ni. nit ñi du ñu jóg mukk ci aw yiw te ñoo ngi teelaloo. naam gën na ngay nag donc ban façon moo si gën dogee lan moo gën si dog yëpp. donc tànnal ma moo ci gën. naam ndax yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi ñuy wax ci xaddis bañ. Mm-hmm. qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. iza aftara ahadukum fa yuftir ala tamrin فإنه بركة فإن لم يزد تمرا فالماء فإنه طهور yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ne kenn ci yéen buy dog kooram nga dogee tàndarma tàndarma kat yàlla def cee def barke bu dee amul tàndarma na nga ñëw ndox ndax ndox kat du laaba tey laaba. naam soxna Manda Seydina Limam alayhi salaatu wa salaam anam jàngalee dog maanaam bu ñu nee bay dox ñaan ñu ñu wax ñaan ñu ko taalibe Seydina Limaamu Laye alayhi salaatu wa salaam bu dog jotee dafay wax bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. allahumma salli ala laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala Seydina muhammadin wa sallim. asbi allahu allahu akbar. ma fas yéenee dox sama kooru tey te fas yéenee wóor ëllëg. naa kon loolu